mbokki Dakar Actu euh, ñu nekk nii moom mooy campement Ngeexoox précisément quartier Sidi euh, quartier Sidi euh gisoon ngeen xabar buñ leen yónnee woon muy xalé yi nga xamantene ci bassin de rétention yi lañu ñu lab te ñu mujjee faatu euh, ci quartier bobu lañu ñu nekk nii ci waaja nak dugg fi nga xamantene, ni mom moy ci kër gi nga xamantene mom moy kër sëriñ bi pour de plus amples informations. mooy Papa Xale. waaw waaw asalaamaaleykum. kii mooy kii bokki Dakar Actu euh, ni ma leen ko euh, dugg nañ ci kër gi nga euh, yi nga par noyade fi lañ dëkk kii ñu jité fi nga xamanténi mom moy mooy daara boobee mu ngi wuyoo ci tour mohammed Fall euh mohammed ñu ngi lay ziaré euh di la euh li ñu bokk alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa xulafaihi wa man iqtafa bi adaarihim ila yawmi ddin ayuha al نحييكم جميعا بتحية الإسلام ويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk mi ñu ngi lay fay nuyoo. xabaar bi démb lañ ko jot heure bi ñu ngi si doon liggéey naka ngeen ko dundee ak est-ce que mën nga dellu si waat tuuti ci naka la demee. waaw niñ ko dundee moom tiis la bu rëy bu métti métti ndax. xëy nekk ak say doom say njaboot waxtaan ak ñoom ba yeggal am ci yeneen mission yoloon dem te mooy di tudd xale wëlbatiku dem dëj am foo leen yebal toog ay waxtu yu néew ñëwuñu la say doom faatu nañu loolu tis la biñ ko yëgee itam tabaarakallahu metti nañu torop nag gannaaw buñ gëmee na ndogalu suñu borom la waaye métti nañu ndax su fekkoon ne ñoom xale yi dañoo demoon ci àll ba fekk benn déeg dafa sëmb kon xëy na sax dana demee neneen waaye la pax la moo xam ne dañ ko faa def man yàgg na dem tool mosuma koo gis mosuma xam ne sax pax la tabaarakallaahu ndoxom fa nekk te xam nga ay xale yegg rek yaakaar ne ndox mi xootul ñu dugg na dañuy sangu yàlla moom seen bakkan wax dëgg yàlla métti nañu ndax xale yi ci alquran lañuy xëy ci lañuy gontu ndax àllarba alxemes ak àjjuma du ñu jàng dañuy dem tool ndax bañ ñu génn dugg ci leen si leen yoon nekkut moo tax ñu ñëw ma leen demale leen tool maa ngi ñëw su ngeen demee ngeen yeggali li des maa ngi ñëw suñu benn mbokk dëkkandoor soxnaam am dooma dem di ko tudd bi ma tuddee ba pare suñu beneen dëkkandoo wàññeeku woon juróom-ñetti fan ñuy dem dafa ci kaamil bi ñu ñëwee laa ñëw fekk xale yi ma leen ana xale yi ñu ne ñu ngi ñëw ci ñu ngi ñëw naka bii ñëw ci yoon bi tabaarakala la loolu am waaye daal ci gàttal bi ñu ko déggee daal métti na ñëw. alors euh, ñaata xale la ak euh, est-ce que yow yaa leen jur. ñetti xale la mën naa wax ne juruma leen waaye mën naa wax leen jur ndax kenn ki sama jarbaat la ñoom ñëpp. tabaarakala famille ci man maay seen kilifa may seen lépp. pour nga dëkk wala da nga fi ñëw pour yor daara. mën naa wax fii laa dëkk ndax boo ñëwee ci dëkk am fa lu ëpp fukki at ak lu teg fii fii laa dëkk tabaarakala ba am fi kër am fi njaboot. alors léegi euh, mbir mi am na euh, xam nañ ne dafa am euh, benn société bu ko. bu bu pax mi mm. euh, naka ngeen fas yéene doxale da ngeen di porter plainte wala nan ngeen di doxalee ak ñoom wala da ngeen a bàyyi rek lépp mu sedd. waaw loolu moom du mu ci mën a sori ndax samay kilifa ñu ngi si ginnaaw ndax ndaw laa nekk seen biir tabaarakallaahu xëy na responsabilité bi man la ko yàlla jox ma yore daara ji ji fi jàngale waaye ñoom ñooy samay kilifa ñu si ginnaaw tabaarakallaahu ndax euh, ñu ngi si ginnaaw ñoom xëy na dañ la ci wax dara. naka nga dundee dëj bi ndax euh, jàppale am na wala. waaw sant yàlla ndax ñi nga xam ne ñooy autorités yi nekk fii ak Ngexo kenn ku ne dugal na ci sa loxo ndax ñëpp bàyyi leen seen yitte tabaaraka la ñëw fekk li bi ñu ko yëgee moo tax xëy na tiis na waaye woyof na sama fami itam ñëpp ñëw nañ ku ko yëg ku ne rek tabaaraka la ñëw nga am na loo indiwaale waaye daal li gën a fës mooy autorités yi nga xam ñoo nekk Ngexo ku mel ni monsieur maire ku meneen ne monsieur Ba sama xarit tabaarakala moom it ñëw fi am lu mu indi lu bari Malick Guèye moom it kon si gàttal autorité yi nekk fi à Ngexo kenn ku ne ñëw na yëg na li yaa ko moom am loo ci joxe. alors bu ñu ñëwee ci kër gi nag fekk nañ fi euh, autorité yi euh, fekk nañ fi ki nga xamante ne moom mooy euh, jaraafu dëkk bi muy le maire Pape Songo Diouf ñëw partagé li nga xamante ne nii moom mooy douleur bi. fekk nañ fi tamit euh, euh, ki nga xamante ne moom le directeur de l'ANA euh, Maguette Ba donc ñu jox ki nga xam ne moom mooy jaraafu dëkk bi moom it mu joxe njaalam ci li nga xamante ni moom mooy li xew. ah waaw bisimilahi rahmaani rahim inna lillahi wa inna ilayhi rajiun avant tout sax nañu remercier d'abord, les sapeurs pompiers yi fi ñëw démb def fi liggéey bu am solo. ba nu noppee ci loolu itam commandant brigade bi capitaine bi yëpp ñu ngi leen di remercier mais li ëpp solo tey ba nu xëyee nga xam ne corps bi waruñu ko woon a jot procureur ban ko jotee dem dafa ne mu waroon dem kaw la mais tukki ji mais tukkee tuma naa xaar ba suba ba médecin bi signé ma ngeen jot corps bi du ngeen mën a xaar ba altine ba nu xëyee ñu woo médecin bi médecin bi ne loolu fiis la boo xam ne duñ ko xaar kat kon dañu loolu dañ koy xam président de bi République ñi mu teg fii ñu ngi góorgóorlu ci wàllu liggéey bi

man dinaa fa dem chaque semaine léegi sax def ay visite di xool ndax loolu am na wala amul waxtaan naa tey kilifa yu mag a mag nee na jël jël ay mesures ba lu mel ni dootul tollanti ko fii ci réew mi ñetti xale ñoo fi gaañu démb fii ci Ndiakho mais benn itam gaañu na ca tàngis ci pax la dugg itam muy ñeenti xale ci benn bésu démb bi loolu defe naa ne ki nga xam ne ñooy liggéey autoroute bi à bi liggéey bi baax na effectivement projet bu am solo la mais sécurité bokk na aussi ci leen leen fay kon nan ko di def ni nga xamante ne noonu lañ ko santaane bu dogal amee nag dogal am na wante nag aussi loxo seen loxo mu ngi ci biir kon nag ñoom seen bopp nu gën a lu ci loolu ba nga xam danañ mën a sécuriser ba lu mel ni dootu fa am loolu laa leen di dénk ñoom. donc euh, ñu ngi woon fii nga xam ne moom mooy ci campement Nguékokh Euh, fi nga xamante ne fi la xale yi wàññeekoo ci quartier bu ñuy wax Kër Sidi euh, li ci gën a euh, tiis nag moom mooy que ne xale yooyu dañ ko dénkoon ki nga xam ne moom mooy sëriñ bi dégg nañ nag kàddu yi nga xamante ne moom moo fi jóge woon ndax xam ngeen ne bi mbir mi amee Dakaractu daf ci defoon benn mbir ba tax na indi woon yeneen i kii daal ñu dellu si fii nga xam ne moom mooy fi mbir mi xewee fii ci ñi mu dal pour waxtaan ak ñoom ñu ngi ba tey ci kër gi fii mais bi ñu yegsee fekk nañ fi ki nga xam ne moom mooy euh, délégué de quartier bi Sagana Fall euh, alors euh, délégué naka ngeen dundee mbir mi taalibe yi nga xamante ne wàññeeku nañ ci quartier bi ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci sang bu tedd bi ñu ngi wax ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah biñ ko déggee metti na metti na lool bu doon kenn rek métti na waxuma la muy ñett te xale yu ndaw man bi ma jullee juma ba ñëw fi ma toog di añee lañ ma woo wax ma ko ma woo commandant brigade mu ni ma fan la ñu wax ma fan la ma tegtal ko ba ñu demee dañoo fekk benn xale bu mag bi mu ñu mu lab ñu génne ko ba ci biti teg ko ci biti ñuy warante ndax am na ñeneen ñaar ñi des nañu wala dañoo dem kër ga ñu ne daal nañu vérifier sapeur pompier summeeku dugg ci biir bi ñu duggee ci biir di xuus ci biir ndox mi man remarqué naa ne am na koo xam ne ndox mi yëgsi na ba ci baatam te xale bi ci sapeur pompier bi du ko gàtt ndox mi dem na ba ci baatam. bi ñëwee ba ci baatam ñoom ñaar ñëpp ñu ànd di seet di seet di seet ba jàgg ñu gis ñu taxaw waxante kenn ki sëgg yëkkati benn xale bi ñu seen bopp bi muy flotté ñu ne bon xale yaa ngi ci biir ñu génn ko teg duggaat jëlaat beneen xale bi mu génn muy tiis nag lu metti ndax ku sañoon buñ la dénkee lañ la dénk ko delloo mu ñoŋ parce que laaxan dafa metti mom nak jambar la jambar la ndax xalé mi duñu ñu traîner jàng dem tol lolou lañuy ñuy tayit xalé yi ñom ñepp ko ci gis amna ndey daara kenn du ci lo andi lek ñom ñepp ndey daara ñoo leen jox seeni ak seeni bon koku ay xaleem ñuy traîner. waaye nag ndawal suñu borom bu xasee ba ñëw kenn mënu ci dara. ñu ngi ak soxla Fat Fall moom mooy ndeyu daara ji euh, soxna si euh, naka nga dundee affaire bi. xanaa ñu sant yàlla julli ci yonent bi di sant suñu ñaari waajur di sant borom daara ji ndax lii ndog mu yàlla indi la xale yi taxawaalu juwuñu demuñu fenn lu dul jàng alxuraan dem ci seen liggéey kon nag lii bu ko yàlla indee ndog mu yàlla ak yàlla waroon a yemale fii seenug dund moo waral lii. kon daal gis ngeen ko suñu. waaw ndax bu ñëw nañu fi ñu dëkk ñoom wàcc fa kaamil vendredi seen sëriñ ñëw di wàcce kaamil fi mu wàcce kaamil dem na tudd ba ñëw wàcce kaamil bi mu ñëwee ba pare ci la yëg lii kon nag dogalu yàlla rek. ci loolu rek lañ ko mën a teg ndax yàlla moo ko dogale nii merci beaucoup